ñu ngi jëmaat ci élection présidentielle en 2024 aussi tamit gisuñu benn yoon PDS am candidat euh, tamit gisuñu kenn koo xam ne Karim Wade génn lu manifester benn yoon pour wan ne mu daa bëgg a dañoo bëgg nag mhm. Karim wax leen lu leer ndax euh, pétition boobu noonu daal dañ koy jox euh, njiitu seen papa yi Karim Wade di maître Abdoulaye Wade ngir wax ko tamit Karim na leen létt baa mu firi leen pour ñu dem xooli beneen gis nga pour wax dëgg rek yàlla gis nga waa PDS ak mhm. gis nga Karim Wade fi mu nii mhm. Karim Wade Khalifa Sall ñoom ñëpp mënu nañ leen a delloo si joxaat leen seen ay droit terewul bu bu ñu leen si woon. Mhm. man gëw ma ni danañu am dara parce que xam nga la moo tax. voilà bi nga xam ni. parce que sénégalais yi tey jii toll nañ wala tollatuñ foo xamante ni si nii mais da ngay xëy xëy rek cëpp maanaam xiinoo rek du nga xëy taw. parce que Karim Wade mënul nekk ci àll bi pendant des années. xalifa mhm. Sall moom euh, gisoon ngeen ko. mënatuloon amul benn activité politique. maanaam mhm. ñoom ñëpp tey jii li ñu waroon a liggéey à base pour que sénégalais yi xam ni ñii kat pare nañ par exemple. pour mën a nekk président wala jiiti réew mi gis nga man li ma gëm ñoom ñaar ñëpp ku ci dellu si waatoon tamit mhm. mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo am mënoo am lu bari PDS PDS nekkoon benn parti boo xam ne parti bu am doole parce que mënoo tudd euh, APR tuddoo PDS mais jamono xam nga à chaque fois mhm. yàlla moom mooy doxal noonu PDS bi muy ñëw dafa fekk PS voilà PS waaw parti social voilà. ñu bari yaakaaroon na ni na mu na mu demee du ko demee. Ousmane Tanor Dieng ko jiite woon yàlla euh, mhm. mhm. parce que PS nekkoon jiite na réew mi lu ëpp presque quarante ans. Mhm. xam nga ñooñu kon nekkuñu nekkuñu ñu ndaw. mais gis ngeen bi seen nguur waree jeex ni yàlla suñu borom def. bi ndaw ñi màggee mais dañu dikk. ñoom ñëpp intégré wu ci PDS. voilà ji jii Ousmane Sonko loolee la ko yàlla defal maanaam PDS d'accord parti bu mag la woon. mais voilà. Mhm. nan nañ ñan xool yenn militant la amoon tey jii nii yàlla moo def moo indi phénomène boo xam parce que Sénégal 65 à 70 pour cent yëpp ay ndaw lañ. moom nag dafa ñëw moom bataille boobu la la la ñëw gagné moom Sonko ci terrain bi dafa dikk ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp parce que bu njëkk ba pare nag def ci campagne de communication bu am solo mooy que ni. fexe leen ñoom ñëpp ñu jëm wuti carte bien vrai que gis nañ euh, nguur gi am na politique bu mu teg mooy carte d'identité yu bari ci ay ndaw. liñ ci mhm. def ci ginnaaw mooy non vote. Mhm. Ousmane Sonko dafa ñëw dugg ci biir ndaw ñi fexe ba dugg ci seen biir xol moom leer na ko nañu ni ndaw ñi ñoom ñoo ëpp. Mhm. te déjà gis nañ ko gisatu ko. te euh, xam nga ay ndaw ñoom ñoo mën a jug wàcc ci terrain bi. ci bare bare ñoom ñoo ko mën a def. moo tax li mu am tey jii mu néew ay politiciens yu ko am que ñu bari ñu leen daan topp ay mag la Ousmane Sonko boo gisee mu am ko daf leen fekk fa nga xam ne ndaw yi fa lañ nekk mu ci réseaux sociaux yi. waaw moo ndaw xam nga réseaux sociaux yi tey jii bu fekkoon te yi fi nekk amoon na nu doon doxalee tey jii xëy na moom mënoon na parce que doon na dem ci télévision yi mais xëy na peut-être bi ñu gisee yenn télé yi ak ni doon doxalee. Mhm. ci la dem ci réseaux sociaux yi ndaw si ndaw yi tamit jàppale ko ci. président Macky Sall tey jii bu faloon na ko sant réseaux sociaux yi. Mhm. moom. bu faloo tey jii na ko sant réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi maanaam nekkuluñ fi kenn képp koo xam ni yaa ngi dox ci intérêt sénégalais yi réseaux sociaux yi sénégalais yi ñoom ñoo mhm. lay fekk si bu defee nga daal di occupé li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi gis nga mhm. maanaam liggéey boobu la Sonko def nga xam ne président Wade da ko defoon nga xam ne ay ndaw kese ñoom ñoo ko toppoon nga mhm. xam ne dañ ko lii sax ci histoire parce Euh, ci mhm. taarix parce que ay jamonoy 88 ak yooyu noonu vraiment euh, dañuy dem gestu ji laaj ñi nga xam ni fekkee nañ ak mhm. yenn ci ay archives ñu xam mais nga gis ni euh, moom président Wade jamono jooju ndaw yi ko mhm. toppoon mais bi ñu demee bu màgg mën a voté ci la président Abdoulaye Wade falu tey jii nii Sonko loolu moom moo xewaat ndaw ñi mënuñu nekk 65 70 pour cent ci réew mi ndaw yi ci ëpp ñëpp ànd ak Sonko ba pare ak ba pare li ci gën a yéeme mooy gis nga ngeen récemment xam lan mag yi Pastef mag ñi léegi ñuy ngi commencé di adhéré ci li nga xam ne moom moo di projet bi moo tax ma ni la. Mhm. ñoom même bu ñu dikkaatee fekk nañ koo def liggéey boo xamante ne si nii ci terrain bi ñoom mën a amatuñu amut amuñu temps wu. Mhm. def liggéey boobu noonu la fii ak élection yi nga xam ne moom moo moom mooy ñëw pour ñu pour ñu mën ko def. moo tax parce que d'ici euh, Euh, ñëw na ba pare. léegi nag mën nañ ñëw. Mhm. pour que xam nga démocratie bi gën a yaatu. voilà langue yi voilà mu am parce que langue gi tamit il faut mu am ay mbër yoo xam ne dañuy sëgg bëri. Mhm. ku mën sa morom duma. mais PDS man Doudou Doudou Wade laa fi gisoon moom moo doon jongante ci wàllu euh, maire de Dakar bi mais amul à part moom gisuma keneen ko Omar Sarr. nekkatu fa bii kii di euh, Lamine Thiam. Mhm. tam nekk maire bu moom moo nekkoon seen tête de liste. voilà Lamine Thiam xam nga Lamine Thiam ñu bari xamuñu Lamine Thiam. merci beaucoup léegi le fait que ñoom parce que PDS fi mu ne nii seen yaakaar ji ñoom dañu raté dañu yu bari mooy. Ah, ba ñu ñàkkee ba ñu ñàkkee Karim Wade. Mm-hmm. au lieu que ñu waajal keneen ko xamante ne si dañu ko mettre devant mm-hmm. euh, pour que sénégalais xam ko dañuy toog ñoom di xaar ki nga xam ne moo di Karim Wade te loolu daf leen a perte loo temps bu bari moo tax li ma wax sànq Sonko daf leen a devancer ci terrain bi def ci liggéey bu ama am solo boo xamante ni tey jii li mu dugal ci xolu sénégalais ak ni mu liggéey ci sénégalais yi tey jii Karim Wade Khalifa Sall képp ku ci dellusiwaatoon mm-hmm. temps bi nga xam ni tey jii moom moo des fii ak élection 2024 yi amoo temps boobu noonu pour mën a liggéey loolu ci xolu sénégalais yi loolu moom mooy dëgg Mhm. moo tax même bu ñu dikkaatoon man gëwma ni mën na am benn impact ci par rapport ak position bi nga xam ni Sonko amee na ko parce que dafa nekk loo xam ni liggéeyu ko ci fan. Mhm. liggéeyu ñaari fan daf liggéey pendant des années parce que ñun ñëpp ñu ngi foon bi Sonko di soogay mhm. amul kenn koo xam ni amul kenn koo xam ni 2016. amul kenn koo xam ni gëm gëm nga gëm gëmoon nga bu daan wax sa nit ñi daawuñu ko bàyyi xel. muy muy bur lenge di wër ci plateau yi ba gis nga tey jii nii parce que gis nga dëgg. maanaam baatu dëgg boo ko yëkkati à chaque fois maanaam comme jant bi fenk la lu mu yàgg-yàgg day gën a jëm ci kaw mhm. léegi nag xëy na sénégalais bi ñu demee parce que ñu bari liñ ibaadu la xam nga lan Casamance la dëkk mhm. façon loolu ay diabolisation la pour euh, bu nee def nañ ko ko mhm. bu dikkee bi xam nga nan donné li ainsi de ah, suite mais gis nga parce que Casamance dafa am lu am solo mooy Casamance c'est la première fois Euh, région boobu noonu ñu am benn candidat boo xam ne c'est envergure envergure nationale. Mhm. candidat yi fi daan am yëpp ñoom seen base ñoom foofu ci ci ci ci ci en biir Sénégal. Mhm. amul beneen réew boo xam ne dinañ fa am ay militants wala ay sympathisants yu leen bëgg. comme mhm. ni ñu bëggee Sonko. ñoom daan nañ gagné seen dëkk daal seen localité daan nañ fa mën a gagné. mais amul feneen foo xam ne ci réew mi daan nañ fa am quand même yenn yenn yenn kii mais tey jii ci taarix. li soog a gis li nga xam ne gëstu nañ ko kon boobu. Euh, Casamance mu am benn leader boo xamante ni si ni mais Sénégal yëpp dañu ko jox bopp ku léegi kon loolu nekkul ay discours caaxaan nekkul loo xam ni dafoo liggéey ci benn fan wala ñaar fan euh, mais aussi mais aussi na loo xam ne euh, liggéey na ko fii peut-être loolu tamit ça va servir ki nga xam ne mooy Karim bu baax mais Karim li mu am nii li mu am nii mais mhm. papa ji moom moo tax mu am ko Karim lu mu fi liggéey mhm. ci barke baay bi la ci barke baay bi la taasant d'accord mhm. jàng na am na xam-xam am am ni mais baay bi moom moo tax mu am ko. merci beaucoup dañu wax ji dëgg moo tax ma ni la. te moom li mu waroon a def mooy yoo xam ne moo ko waroon defal boppam baay ji mënu ko ko defal mooy mu dikk wàcc. ci terrain bi sol wax leen méwétam wax leen programme sénégalais xam ko mais malheureusement loolu da ko raté moo tax ma ne la sànq même bu ñu dikkaatoon mënuñu gëw mën nañu am benn impact bi euh, ci li nga xamante ni si nii depuis des années am na des hommes politiques yoo xam ne ñu woon ci terrain bi di ko liggéey ak sénégalais yi di dem ci mm-hmm. diaspora bi moom mi ngi toog Qatar xam nga ca fële ca doxa boobu ba léegi moom boo ko déggee dafa tiwite wala mu mhm. wala mu bind benn bataaxal ci loolu rek nga ko daan dégg bokk la ki nga xam ne mhm. depuis des années mi ngi fii nii di wër ak sénégalais yi di nekk ci plateau yi quand même ñu koy euh, coono bu ne ñu teg ko ko mais loolu mënuñu yem nañu waxoon ci dëgg mhm. léegi nag li nga xam ni moom moo ci rafet na daal mën nañ leen a bàyyi ñu ñëw parce que loolu dafay taaral démocratie dafay rafetal une démocratie parce que imagine tey ñu dem élection présidentielle yoo xamante ni si nii Karim Wade daf ci nekk Khalifa Sall nekk ci euh, Sonko nekk ci waa benn bokk yaakaar président Macky Sall mënatul bokk xam nga ku ñuy tabb Amadou Ba ak keneen ñooñu nekk ci mais ku noonu ku ci gagné. ku ci sénégalais fa la nga xam ni kii nii dafa mérito nekk président Sénégal. parce que rek. merci beaucoup mais parce que ay mbër yoo xamante ni si nii ay pois lourds yu mat mbër ñoom ñoo ci nekk ba pare nga génn quand même yooyu élection mais loolu amul élection yu amul élection yoo xam ne yu gën a crédible yooyu les élections moo tax il faut que pour euh, rafetal li nga xam ni moom moo di. Euh, suñu démocratie ñooñu ñu dikkoon sëgg bëri sëggandoog bëri ak ñi fi nekk doon na rafet loolu parce que ku ci gédd vraiment kenn dootul laam-laame kenn du am benn layam-layami sa roi des arènes ci làngu politique gi mais nag euh, nekk njiit boo xam ni wala nekk président boo xam ni da ngay écarté bépp mbër boo xam ne yow leer na la naa ñu ni mën na la mën na la ci xabal nga daanu nga dikk fekk Karim Wade aussi mais Karim Wade aussi adversaire potentiel la woon parce que euh, sànq ah. wax naa ko euh, ki nga xam ne moom mooy euh, maître Abdoulaye Wade moom préparé woon na ko terrain bi mais malheureusement dafa xam ne président wàcc voilà xam nga li taxoon mu nekk adversaire potentiel. exactement sénégalais yu bari dañu wax ne dañoo juum ci góor gi. léegi nag le fait que Wade mi ngi. fi woon bëggoon rattrapé wu ci Karim. moom ko fekkatoon. Mhm. mën na gis nga euh, président Macky Sall moom il a bien fait pour lui pour moom laa wax. Mhm. mu écarté ki nga xam ne moom moo di xali euh, Karim Wade ci yooyu mhm. élection parce que. amoon naa yàqin que ni ci boobu lay jamono parce que sénégalais yi dafa meroon nañ gëmmu. di ne fi Abdoulaye mais après doon nañ ko réccu. mais par la suite ñoom dañu bëggoon a rattrapé wu ci li nga xam ni moom moo di doom ji muy euh, Karim mm-hmm, mm-hmm. mais gis nga ni mu ko def écarté ko parce que boo PDS euh, maanaam daanu woon na mais taxul woon doole ji néew comme ni mu demee nii tey mm-hmm. parce que ténor yu bari booba ñu ngi woon foofu noonu bu leen leeroon ni maanaam Karim Wade bu fi continué woon di nekk ñoom danañu continué di ko gëm jàppale ko tu élection 2019 su dikkaatoon mën na am lu bare bari Euh, président moo ko daaneel aussi. bon PDS parce que bu fekkente ni. maanaam parce que lim jàpp Karim te ñoom seen seen c'est un serpent mu dem ku dagg bopp bi. voilà loolu kese la maanaam jaan boo daggee bopp bi dara dootu fa des. yaram yi gudd na lool gudd na lool. muy amul solo mhm. maanaam serpent dafa fekk jaan ji mu dem dagg bopp. ba pare fekk ténor yu bari yi nga xam ne ñu ngi woon ñu ngi woon. PDS mu xëcc leen aussi mu jël leen mais ay ay ay ay ay kii euh, moo kii. Omar Sarr amoon na doole foofu noonu ak Baara Gaye gaala ba Baara Gaye élection yi moo tax mu génn. élection législative bi nekk bi nekk Kébémer Diagne Fada. Diagne Fada kooku nga xam ni euh, lu ko président mag Wade defalul presque amul. Mhm. voilà Diouf defal ko lu ba ak ñeneen ak ñeneen mën nañ ci lu ñu baree bari ay Farba Senghor ñu baree bari ñoo xam ni tey jii bon ñu ngi woon biir euh, biir PDS ñu xam ne tey jii président Macky Sall dafa dafa. Euh, dafa éliminer Karim Wade ba pare jël loolu taf ci wetam loolu moom moo gën a suuxal euh, gën a gën a su suuxal PDS ci boobu la jamono nag mhm. ñeneen ñi nga xam ne ay opposants lañ ñoom ñi ngi toog di liggéey euh, di tëgg seen parti comme ni nga xam ni noonu la ko sénégalais soxlaa te loolu nekkul liggéey boo xam ne da ngay ñëw pour un jour rek ni da ngay jëli Khalifa Sall pour pour déedéet man gëmuma loolu moo tax même bu ñu la indee tamit mën nañ ñëw pour rafetal la mais Karim mais mais li nga xam ne euh, gis nañ ko président def ko Karim ak ki nga xam mooy Khalifa Sall ñoom ñaar mënatuñu wala euh, yoon mayu leen pour ñu euh, bokk ci élection législative yi di ñëw élection présidentielle yi ñëw Khalifa Sall ak ki ne mooy Karim Wade moom bu ñu leen parce que dañu bëggoon a dugal benn loi pour amnistie leen amnistie leen voilà te loolu loi boobu li ci nekkoon ci ngaañ mooy bu ñu ko xasoon a dugal du ñoom ñaar rek la ñuy amnistie mm-hmm. képp koo xam ni def nga infraction bi xalifa def da nga ciy dugaale képp koo xam ne def nga li kañ war def da nga ciy te boobu nag ministre yi nga xam ne tey jii nii. ñoom ñëpp dañ ciy dugg kon. sàcc nañ xaalisu askan bi tey jii mën nañ leen a amnistier bu ko defee ñu raw. loolu moom moo tax loi boobu man bokk naa ci ñu ko contre kan mhm. waruñu ko voter très sincèrement fii ci suñu parce que bu jàllee. bëgg nañ Khalifa Sall dellu si lool bëgg nañ Karim Wade dellu si lool mais bu ñu jàllalee loi boobu noonu mhm. am ñeneen ñu ci porox ndollu pour mën am ñoom aussi tamit liñ bëgg seen liberté aussi man am na ci ñoo xam ne vraiment fii nii ñoon mhm. gëm naa ni sénégalais duñ leen baal parce que li ñu def c'est extrêmement grave c'est encore plus gravissime que li nga xam ni moom la Khalifa Sall def li nga xam ne moom la Karim Wade def moo tax mhm. loi d'amnistie boobu noonu man ànduma ci woon ñoom ñu ko def mét dañ ko méditer te bëri na sénégalais bëri na bëri na sénégalais ci àndul woon sa aussi ah oui dañ ko mhm. togg xalaat ko ba xam ne lii jëm ko doon viser mais heureusement gars yi déjoué nañ pièce bi nga xam ne moom moo nekk ci biir pour fexee nu ñu ko bloqué et loolu c'est très très important ci réew bu ni mel. parce que mhm. nag dafa yomb trop nga sàcc xaalisu askan ba mu xëy benn jour rek ñu ni la baal nañ la loolu vraiment loolu dafa dafa yomb. baal nañ kii te yow da nga cee duggaale baalaal nañ la. <laughs> <laughs> mu nekk loo xam ne dafa yomb lool lool lool loolu nag euh, ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoo daal di euh, bëgg li ni pour que euh, Karim Wade létt leen ba mu firi pour que ñoom itam ñu daal di wut seen beneen candidat boo xam ne day daal di bokk ci jongante élection présidentielle en 2024 loolu nag peut-être dinañ ci am yeneen ñuy leeral ba. xam ana euh, pétition boobu fan la daal di euh, mujjee waaye buñ jugee ci loolu dañuy daal dem feneen waxtaanee leneen muy euh, wàllu LONASE dañuy daal dugg ndax gis nañ ne ñoom dañoo daal dugg suñu réew amoon benn objectif boo xam ne amoon nañ ko muy deux cent cinquante milliards moo nekkoon seen objectif ñu gis ne jamono ji am nañ deux cent soixante six milliards mu nekk seize milliards yoo xam ne daal na ci toftal loolu nag doy naw loolu nag.